jërëjëf suñu waajur Baye Ibrahima Thioune Madior jërë ngeen jëf mbokk yi jàkkaarloo ci dañu seetaan ñoo ngi dellu si leen ñaanal baax dellu si nag di sox suñu nuyoo ak suñu siyaar ci jëmm ju tedd ji nga xam ni suñu waajur la wax naa ko léegi ni ko Baye Ibrahima Thioune day nga ñu ci biir day nga ci bët yi soo yëkkatee kàddu rek sëriñ bi moom naa yëkkati kàddu waaye nag xam naa mbaax ak sëriñ bi di Cheikh Ibrahima Ndoye waaye itam ak matam moom mii di suñu kilifa moo sabab kàddu yi nga xamante ni moom lañuy ñuy yëkkati mbokk yi bàyyi xel Sénégal gépp waaye cay bàyyi xel àdduna biir réew mi fu waay man di nekk mbégte mi ñu am sëriñ Touba lañ koy seereel ndax ki nga xam ne mooy ndigal li bàyyi ko ci sëriñ Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général kulu murit yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér wàcc ki nga xamante ni moom la ñuy xoole tey jëmmi Serigne Touba Cheikh bu Mbacké ji di Serigne Ahmadou Mbacké ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Say Mbacké Souhaïbou ak mbooleem ay rakkam yëpp ak mbooleem taalibe yëpp ñuy jëfe ndigal li nga xamante ni mooy ndigalal Cheikh Mahamadul taxaw Mbacké di fàttaliku suñu jàmbaar ji nga xamante ni moo di Serigne Abou Madiana bu ci taxawaay bi nga xam ne amoon na ko léegi damaa wax ne bi ñu génnee Serigne Ahmadou ci ndigalal Serigne Abo Seye mi nga xam ni mooy saytu commission bi yëpp nga xam ne mooy comité organisation màggal gi sëriñ euh, way juróom di Serigne Abdou sama tam Touba Cheikh Soyu Mbacke dénk ko liggéey bépp ko ci loxoom muy nag képp koo xamante ni njaboot la ci Serigne Touba Cheikh Soyu bu Mbacke ak fu mu mën a nekk nañu fa dem ba ñëpp xam ni Serigne Touba Cheikh Soyu bu Mbacke day yaatal ak taxawaay ba mu amoon tey njaboot gii rawatina Serigne Cheikh Say taxawaay boobee rek moom la am te njaboot gépp ñu ngi ci ginnaawam

ba comité organisation bi nii lépp lu ñu mën def itam fu njaboot ak sëñ euh, Souhaïbou Mbacké nekk nañ leen fa fekk moom mii nag bokk ci ñi nga xamante ni tey sëriñ euh, Cheikh Amadou Mbacké bu da koy sagoo kon moo tax nag ñu bëggoon a ñëw yëkkati kàddu jébbal ko mu yëkkati kàddoom jëmale ci senegal yëkkati kàddoom jëmale ci àdduna bi yëpp waaye suñ ñëwee fekk fi suñu wayjur wu tedd wii di soxna Penda Ñing euh, géwélu Cheikh Mouhamadinil Fadil di suñu wayjur yar ñu depuis 2002 ba léegi ñu nekkandoo moom ci rajo RTI fu ñu mën a nekk ci àdduna ñu duñu umpalanteeg moom yaakaar naa ni moom mii rek suñ ko gisee ci kanamu seex bi dana doy sëkk waaye itam fekk fi sëñ ilimaan mi nga xam moom tamit am lef mi muy bay ci xisidaay sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul yi ñëpp ràññee nañ ko yàlla na ko yàlla kattanal ndaw la waaye tege na ci yoon yàlla na ko yàlla dëgëral bu baax a baax sëriñ bi kon ñu jox la kàddu gi rek ngir nga yëkkatee ñuy kàddu euh, ci bésu tey bi ñu nekk waaye itam taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci yar ak jàngale ak itam li nga xam ni mooy lislaam ji taxawaay bu wér bi nga xam ne am nga ci nga nekk fële ca sow waaye teewul la muy rëb rëb rëb lu yàq yi di yàq yaa ngi defar lu ëpp loolu ngir lan ngir Serigne tubaa day da nga xam ni amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am mission bi ñu la sant muy defar ndaw ñi ndaw ñëpp di jóg dëgmal ci lenn yooyu itam nga fas yéene leen a gindi euh, kar leen ba du dem ci safaan jëm ci Serigne Touba dund ci Serigne Touba dee ci sëñ tubaa yàlla yéex dekk ci sëñ tubaa loolu mooy xeex bi nga xamni mom nga taxaw teem di waxe bismillah bismillah bi wa sukuri liman kuli bisara loridan duna suhtin inda sarsara lo sarai وردوان bila shiqatin مشخادلي لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من عرتعلنا وفي عجم من سارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا سيارة فارقوا الدارين أو سارا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 jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jaraw làkk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp mbokku julli yi mbokku taalibe yi ak dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi xalif général des mourides Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te di ci teg Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Chouaïbou Mbacké ak mboolem njabootu Serigne waa gépp ak njabootu Serigne Souhaïbou bu gépp di nuyu sama mbokk di ma bokkal lislaam ak diine gi yëpp di nuyu mbokku taalibe yi di leen fàttaliwaat di ko fàttali sama jëmm ji lii ñu fi dajale ak ki ñu fi dajale muy Cheikh Souhaïbou Abou Madiana ñu koy fàttaliku juróomi fan ci weeru koor sëriñ bi nag daana leeral bu ñuy waxtaan mu xamal ma sëriñ Souhaïbou lan moo doon ak bëggam te ku ne xam na sëriñ Souhaïbou benn bëgg rek la amoon moo di yàlla ak rasulillahi lislaam diine sëriñ Tuubaa loolee nag moo waraloon sëriñ bi jox ñu ndigal ñu yaatal ko woo ci sama mbokk yëpp jàng alxuraan jàng xasida sëñ Tuubaa ñu bernde bu ñu waxtaanee ñëpp yeewu ndax ku ne xam na sëriñ yi bu lay bëggam kon loolee ca lañ fas a nekk ñu ciy góorgóorlu di wax mbokku taalibe yi ñu bàyyi xel bu baax ci bis bii nga xam ne bisub sëriñ Son bu la ba nga xam ni tey bu so sëriñ son bu del suwaatoon kenn bañ a soppi toogaay loolu nag la la koy may mooy sax ci ay ndigalam waxtandi ko ay tereem ndax sëriñ si Ahmadou Mbacke Souhaibou ca loola la nekk ca njaboot sëriñ Souhaibou loolu lañ nekk kon ñii ci loola ci loolu lañu ñu war a nekk te loolu lañ leen lañ ñu nàmpatal loolu lañu loolu la ñu digal sëriñ Abo Say moom sëriñ si Ahmadou Mbacke Souhaibou bi nga xam ni moom lañu ñu dénk màggal gi ak ay kilifaam loolu la ñu digal te ci lañ fas yéene nekk ñi ngi ñi ngi leen di sant di leen gërëm di sant soxna maam xëri mu sëñ Ablaat di ko beral ak cant ak nuyoo ak mboolem njabootu sëñ Sooy bu yëpp ak njabootu sëñ Ablaat boobaak léegi njabootu sëñ Ablaat gi ñëw nañ fi di ma nemeeku di ma ñaanal sëñ am sa léegi dafa jógee mu sëñ aboo mu léegi la fi jóge sëñ Abo mu sëñ Sidi ak kilifa yu bari ñëw nañ fi waaye jàpp naa ni tey si tey maa waroon dem fekki leen waaye seeni mbaax ak seeni yërmande nga xam ne amuñu jot bis bu ne ñu ngi seen toolu maam yi di liggéeyal seen maam ñu bàyyi lépp ñëw fi di ma di ma ñaanal ngir jëmmi Serigne Touba yàlla leen ko yàlla fay ñoo ngi ñaanal Serigne si Ahmadou Mbacke sooy bu yàlla kàttanal ko yàlla gën ko wéral noonu lañ koy ñaanale sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa télévision bi ñëpp li ci des ñu bàyyi ba ngoon ba gan ñu yegg si di sant Baye Ibra Thioune Madior mi nga xam ni kenn la ci man ak kilifa yi fi teew hmm. eh, jom ceeki ñëpp a ngi ñuy toog sant nañ ñëpp di sant soxna yi toog ci ginnaaw di yaa soxna yaa Aïcha ak ay rakam maam soxna ak sama doom yeeg jaboot yeeg taalibe yëpp gis nañ taxawaay bi ci bis bi waaye na ngeen xam ni man day mënumaa fay te aw ma fay waaye ki am fay mën na leen fay muy Serigne Touba Cheikh Sohaïbou Abou Madiana Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Sohaïbou yàlla na leen fayal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.